altine ci weer bi nga xam ne moom mooy janvier 2015 mbokk yi am na prix boo xam ne El Hadj Abou Bilal la jot na ko amaat gis ngeen ko ci télévision Futur Média ci journal li nga xam ne nag moo daw ci week bi yëpp mbokki nag li ñuy ñëw moom mooy dans un premier temps tegal leen li nga xam ne nag moom mooy cérémonie bi nan la amee woon Sorano ak lan moo tax cérémonie bi am Abidjan dina ci ñëw indi ay leeral ki nga xam ne moom mooy Sidya Bayo nga xam ne nag moom moo taxaw ne carrément fii ne bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko commandité moom nag waxtu bi ñu wax ak yéen dafa am loo xam ne moo ko jàpp di feebar muy wér ak jóge ko daanu moom si boppam dinañ wax feebar bi nan la koy dikkee ak fi mu nekk ci hôpital ba nan lay dundee feebar bi nga xam ne moom moo ko dal Ablaye Wade nee na projet bi nga xam ne moom mooy Thiès autoroute bi nga xam ne mooy Ila Touba à Ila Touba bi lépp moom moo ko créé woon Macky Sall moo ko jël ci moom waaye du tee nag mu bàyyi ko mu def liggéeyam li am solo daal nañ xam ne ne projet bi projet am la woon ndax moo ko tàmbali woon mbokk yi bu ñu jógee ci loolu nag tey suñu plateau dina xaw day waar troupe ndax liñ ci war a wax nag te tënk ko ci biir mooy souhaité ki nga xam ne mooy Pierre Da Silva émission Kouthia Show joyeux anniversaire moom ak Yacine la maquilleuse mu tombé tamit même bés bi ñu koy souhaité tamit joyeux anniversaire Yacine. joyeux anniversaire pour Pierre da Silva. joyeux anniversaire joyeux anniversaire Yacine Diop joyeux anniversaire. Euh, merci Pierre da Silva ni ci nag euh, mooy anniversaire am waaye nag man maa. <laughs> Ah. Euh, kër Daara la. na ngeen def. laa jógee ah. Uh-huh, maa ngi woon Thiawane samedi. ah. sëñ Mansour Sarr. ah yaa ngi kii de si. waaw ah kooku ah, ñetti xar ñetti xar. ak seize ginaar yéen fa manqué wala nga dem woo ma leen Iran ha ah. ma ne euh, may wax mbokk yi nga xam ne ñoo ngi seetaan ak euh, ñi nga xam ne ñoo ngi far di invité euh, yàpp moom <laughs> ci fin de mois bi eh eh noppi xoolal xar bi daan mbee non non noppi yow ci <laughs> hmm, neex na. kër sëñ Mansour Sarr mu neex kër sëñ Mansour Sarr dëkk dëkk dëkk bu di dem buddi waaw yow yàpp yi ba léegi dafa nekk sama géwén gi Tiwaawan Tiwaawan neex na su ko defee <laughs> mbokk yi may am mbégte ak contentement bu mag delluwaat di wax bu baax ki nga xam ne mooy Pierre de Silva joyeux anniversaire joyeux anniversaire à Yacine ñu si am mbégte ak contentement kon mbokk yi tey dañuy dem ba Sorano indil leen li nga xam ne moom moo waral prix bi ki nga xam ne mooy noce as bi mu ngi nii Monseigneur Louis Mariano Monténamor noce as politique lii la nga xam ne moom lañ joxe photo Kouthia mu ngi nii jël ko mu ngi nii gis moo nekk nii moom la ñu joxe ñoom euh, teg ci lii bon lañ ca teg nag mooy prix bi mooy partisan du dialogue islamo-chrétien euh, su ko defee mooy maanaam euh, dialogue islamo-chrétien bi li ñu ciy def maanaam di ci wax ci seen carême beeg ak actualité bu am ñu dugal ci chrétiens yi boole leen ci moo tax ñoom nag ñu ne wax dëgg yàlla Kouthia bokk na ci ñi nga xam ne partisan wu dialogue islamo-chrétien groupe Kouthia Show yëpp delloo nañ leen jukkal. Eh! des na des na des na des na des na dërëm dërëm yow euh, yow tamit aayoo gaaf ndax da ngaa jékki-jékki ñëw juuxu ci groupe bi ba nga ñëwee tamit mbir yi gën a neex gën a yokk wax dëgg yàlla ñu ngi lay gërëm di la sant ndax danga ñëw spontanément li la fi indi kenn woowu la téléphone na la dërëm ñëwal kenn waxu la da ngaa jékki-jékki am réunion Dakar na door pa nga romb yem ñuy def émission bi nga sant ko ñëw dugg ci te ba nga ci yokkee ba léegi xorom gi dafa gën a am solo yal na la yàlla defal jàmm te la ñaanal yàlla may la fan bu gudd ak wér gu yaram yàlla dénk la borom kër gu baax gu la mën a yor yor la yor bu rafet ndax wax dëgg yàlla euh, ku la am am jabar ndax wax dëgg yàlla Euh, xaritoo bi dox suñu diggante jiit bi jiitu te sax dëgg loola teel sax jëluma la soxla waaye yow ku la jël soxna mën a baax te nag mun naa yooyu yëpp yàlla rek xëy mbiru yàlla kenn xamul lan la euh, àdduna moom damay ñaanal rek yàlla may la borom kër gu baax a baax dërëm wax dëgg yàlla waaye euh, di la tiim sax di la kër day mel ne dama am lu ma gis teew ñi ma cee bañ a dugg wax dëgg yàlla góor bu la tiim di la ñaanal am borom kër na rek dafa am lu muy seet waaye man mag dëgg yow bokkuñu dara bokkuñu ñu war a sëx sax war nañ mën a waaye yal yàlla def jàmm yàlla am la may la borom kër gu baax bu dee ci ñun la ci groupe bi baax na bu dee ci feneen la tamit yàlla ko yàlla def jàmm bii beneen la attestation de satisfaction de sati satisfait ah satis eh, satisfait site mu ngi noonu ñoom nee nañu ministère de la jeunesse de l'emploi et de la constitution citoyenne mouvement Sénégal ñoo ko bokk maanaam ñoo mouvement bi jàmm rek ne ñoo Sénégal ñoo ko bokk da ci jàmm xet ñoom ñoo joxe décerné par le mouvement Sénégal ñoo ko bokk à monsieur Samba Sine alias Koutia pour servir rendu au mouvement et à la nation sénégalaise mu ngi nii waa Bam waa Bambilor ñoo def lii ci euh, teewaayu ki nga xam ne moom mooy Mimi ñu joxe ko samedi ci dimanche ci ngoon euh, à partir de 17 ñu ko joxoon ca terrain ba nga xam ne mooy finalu ASC Daaru ñu leen di félicité sax di bàyyi faale yi nga xam ne ñoo ñu mujj a gagné final boobu nga xam ne moo fa amoon ca Bambilor kon prix samedi la ak prix dimanche bi mooy dimanche bi. kon ñu leen ko waxee rek prix bi nag ñu ngi koy partagé ñu nekk ci équipe bu Kouthia Show yëpp nga xam ne wax dëgg yàlla euh, peccum liir bu neexee yaajaatee ci mbagg ba ña ko dalee ca caméraman yi réalisateurs yi artistes yi bàyyiwuñu kenn ba ñi nga xam ne ñooy romb sax di seetaan ndax ki seetaan moo lay may doole ndax bu la rombee sofanta la dem day mel ne la ngay def yëgu ko kon ñii romb di seetaan sax boole na leen ci mbir mi rawatina ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan yéen ñi ñuy seetaan boole ñu seetaanee ba kontaan ëlbatiku ñaanal ñu wax dëgg yàlla dañu kontaan ndax loxom mu diggante euh, timis diggante 6 heures jàpp timis émission buy jeex nodd bi di taxaw mu mel ne ko da ngay bëggal sa bopp yàlla na la kaay jaamu yàlla loolu nag nit ki mënu laa fàtte ndax buy julli di la ñaanal ndax bu gisee ne pare nga immédiatement xelam day des ci yow bu jàkkaarloo suñu borom am mbégte di jaamu yàlla kontaan bég yàlla si boppam nangu na sa jaamu yàlla ba pare ndax ba ngay taxawal di noddu ak ba ñuy émission bu muy jeex ak nodd bi muy taxaw ak fa ngay julee di ñaan faw nga ñaanal équipe Kouthia Show ñaanal télé bi borom télé bi ñu ngi sant bu baax nag njiit ne mooy Youssou bi ba taxawal télé bi ba ne dañoo làqatoon yàlla feeñal ñu ndax yàlla dimbali ñu télé bi yóbbu ñu foo xam ne bu doon suñu kaddu rek la ak suñu tànk mënuñu foo dem ndax télé baa dem ba Australie dem ci États-Unis waaye yéen nga xam ne yéenay toog di seetaan di ñaanal di ñu tasante mbedd yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla na leen yàlla saxal ci toog di ñu seetaan ànd ak mbégte ku ci am jàngoro yàlla ko yàlla dindi bég nañu trop kontaan nañu dañuy dem nag ba fi nga ne moom dañ koy teg ci suuf indi beneen tur boo xam ne bu dàq Abu Bilal bi te incha allah ñëpp dinañ ci ànd ndax ci kàttanu yàlla waxtaan nañu Yaya Jammeh ba mu wax ñu yan tur la nit ñi di jàpp kenn du ko fàtte kon mbokk yi am nañu mbégte ak contentement di gërëm waa Tiwaawan rawatina waa kër Serigne Mansour Sarr mi nga xam ne ñoom ñoo ñu dalaloon ci dimanche bi ñu lekk fa ba géex a géex a sant nañ ñëpp dinañ ci ñëwaat léegi yal yàlla defal jàmm joyeux jàpp la ndax pierre gi ñëw léegi ak michi boo xam ne ay tànk la te tànku mbaam neexut a xam ak tànku xar buñ ko mariné ba fa sa sàpp way mbaam <laughs>